ñëpp ma fa magoon mm-hmm. te ñu ngi sama ñi ngi sama ndorte sama ndorteel mm-hmm. munu ma woon wax dama dër bar mm-hmm. ñu may gàgganti di bëri dama corrigé naqari deret dégg nga donc euh, il pouvait pas comprendre il pouvait pas accepter que si la ma ñëw jël nag seen kaw c'est c'est normal donc man foofu laa tàmmee adversité kon ñii jaaxalu ma ñoom ñii ñii doog a doog la jaax mais man dama carapacé et puis moi bah, bu la weesoo loolu yëpp nag yàlla suturaal ma bindee ma dama ñeme contradiction man ragaluma contradiction ragal ragaluma avis contraire mhm. ragaluma ku ma xas ragaluma ko ma nangam xam nga lu ma intéressé mhm. ma ragal ko ndax dama ma laa wax démb Pamataal Diallo sama xarit la mhm. ma ne ko man lenn laa ragal ci àddina mooy wax loo xam ne gëwuma ko wax lu du nekkul sama xol man lu ma wax dëgg la sama dëgg la en tout cas léegi nag sama dëgg nag du sa dëgg yow du dëggu keneen moo tax man je suis obligé ma nangu ni ma yàlla bindee ma nangu avis contraire donc man man dëgg bi may wax mhm. ça me soulage c'est une forme de thérapie si man moo tax man su ma tëddee naa man su ma amee lu ma naqari dama koy wax mhm. loo mënul muñ dama koy wax mhm. léegi nak souvent nag problème bi ma am li ma sama yaay di xase tout le temps ne ma nit dalay lay tooñ nga toñor bi ko man souvent damay toñor bi mooy toñor bi bi mooy ni may waxee moo dul baax mu ndax euh, je pense en français di ko waxee olof. Mhm. Mhm. xam nga ma euh, traduit. tradition bi du doon benn tubaab di wax kii traduit trahi. Mhm. donc ni may waxee noonu. ak euh, euh, xët-xët bi. na loolu nag ci man la ndax bu nit doon bind boppam. yaa gën fii waaye man am naa ay daaguwaale mooy damaa ëppal mm-hmm. man moo tax mi nee naa jaayuma kenn classe heureusement ba nekk ma fii <laughs> di jéem a ñoddi ay classe ak ay personnalité ak affaire personnalité moom dama ko judduwaale mm-hmm. ndax kilifa judduwaale laa damaa juddu doon kilifa mm. mënumaa defee leneen nu doon ko waaw dama ko dama dama ko doon voilà xoola bëgg xaalis Fatima ay waay Fatima <laughs> Fatoumata dinaa la fay gis nga yéen ñoo ñu déggandoo ko fay ko sama benn bor. waaw yaa ngi Fatoumata yaa ngi en direct. lengs la. bu lengs matériel. maa ngi da ngaa baadoo la rek man man ku ma ku ma weer ci penc ma weeroo ci penc kon ku pena ñaw. mën a fayee ko bor rek loo ko dégg dama sonn ci dem nee na ma teelal ñëw waaw mooy dama baadoo moo tax moo weer naa ko ci en direct naka ñëpp xale yi capturé jamais ñu capturé lu baax euh, lu baax <laughs> lu ñuy capturé moom lu positif ci man lu négatif la positif la ñuy lay capturé capturé leen lii. ne Aïssatou Diop Fall te ne da ngeen fayeku bor en direct fayu ma ma benn salaire maa ngi ma dara li ngeen bëggoon ko ma dara waaw dara waaw dagg ma nii ko eh, jubóolee waaw soo ko xulóowuñ de non soo ko xulóowuñ de xulóowuñ de non non soo soo soo moom du